gëm naa ni le leadership de Dakar a toujours été agité entre vous et l'actuel premier ministre donc euh, man question bi ma lay laaj mooy après sa double defet nga xamante ne qui vous a valu véritablement votre poste du ministre de la santé parce que man li ma gëm te jàpp ko mooy tey ji boo gañe woon Yoff yaakaaruma ne président Macky dina la quelque que soit nag lu mën a am man li ma gëm te jàpp ko bu nekkoon li xewoon deux 2014 moo xewoon 2022 man gëm naa ne président Macky Sall du la jëlee fi nga nekk wala wala bu la fay jëlee it daf lay yóbbu ci beneen poste normalement après une défaite war nga interroger wu war nga questionner wu pour xool lan moo xew léegi li ma bëgg a xam mooy yan erreur ci politique moom nga def à votre niveau yan erreur politique nga def yow. déjà damay euh, revenir sur euh, les deux défaites mm. et que les deux défaites là gaw ma ne moo déterminé donc euh, sama sortie du gouvernement mm. gaw ma ko parce que après ces deux défaites je suis resté quand même au gouvernement mm. Euh, pendant euh, un certain temps le président Macky Sall face à une situation effectivement boo xamante ne am na dans le secteur bu ma confié il fallait effectivement donc euh, trouver une solution d'apaisement mm-hmm. encore une fois bu ma waxee solution d'apaisement rek damay teg de côté toute la question de la responsabilité parce que bu doon effectivement donc euh, c'est une solution par rapport à une responsabilité mën na am ba euh, donc euh, les décisions dana am beneen niveau c'était une solution d'apaisement et ça je le comprends parfaitement je le comprends parfaitement donc je ne pense pas comme ni nga waxee que si j'avais gagné effectivement Yoff euh, euh, le président n'allait pas prendre la même solution kooku je ne suis pas dans la tête du président peut-être que yow en tant que journaliste mën nga waxee noonu mais moi je considère que par rapport au fait il s'est passé quelque chose dans le secteur il fallait une décision pour apaiser il l'a pris et je l'ai compris maintenant euh, est-ce que il y a des erreurs politiques yoo xamante ne def naa ko je pense quand même, parce que vous êtes des spécialistes, hein, il y a de grands juristes, de grands politologues, ou même un grand journaliste. Euh, euh, en politique, nous, quand même, en sciences exactes. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Ça n'obéit à aucun déterminisme scientifique. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que, bon, des politiques, même si tu gagnes, il y a des dysfonctionnements, il y a des erreurs dans la victoire. Si tu perds aussi, il y a des erreurs dans la défaite. Donc fondamentalement, ce n'est pas donc euh, un système boo xam ne dañ naan je suis dans du zéro faute je vous ai dit tout à l'heure que pendant deux ans j'étais maa ngi woon ci benn mission boo xamante ne c'était une mission d'État où aw ma woon jotu euh, assumer l'action politique au quotidien mm-hmm. peut-être que bu ñu doon defaat donc euh, le jeu et que l'État me confie responsabilité comme ça boo xam ne daf ma war a jëlal deux ans yoo xamante ne daf may tëj danaa trouver un mécanisme alternatif boo xamante ne di rëcc di xool effectivement est-ce que euh, amul luy sointé quelque part ça c'est une leçon par exemple qui été tirée mais ce n'est pas une erreur parce que à chaque fois boo defee évaluation di nga tirer effectivement un certain nombre de leçons pour pouvoir faire autrement beneen yoon Euh, il y aussi euh, des éléments importants yoo xamante ne euh, certainement buñ ñu doon defaat liggéey bi danaa gën a insisté au auprès des pouvoirs publics pour que yenn travaux yi ñuy entamé di ko def dans la collectivité locale ñu mën ko suivre dans une logique boo xamante ne du yàqal ki xamante ne moom moo gérer la collectivité locale il y a eu yoo xamante ne euh, déroule nañ ko dans ma commune yoo xamante ne ce son des chantiers d'État les population la population la popula la population de proximité du chantier ou bien ñi xamante ne ñoom ñoo nekk ci commune bi bu ñu gisee ne tali bi parewul pendant cinq ans c'est un chantier ils vont se dire le maire les population de Yoff Layène quand ils voient que leur préau est là pendant presque cinq ans le projet est la avancé wul ils vont dire bon maire bi les sportifs de la localité bu ñu gisee ne le stade a été démarré mais depuis lors bon c'est fermé et cetera ils vont se dire nous voulons notre stade c'est le maire tout ça day am que j'appelais tout à l'heure des effets hmm. c'est des choses qu'on comprend donc euh, mënu ma ko tudde erreur mais leçon la boo xamante ne c'est une leçon apprise beneen yoon dans une circonstance comme ça danaa gën a donc insister def pression auprès des pouvoirs publics pour que chantier yu mel noonu bu amee ñu mën si taxaw pour bañ a yàqal effectivement